Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez les programmes de Salam Vision. Voici une synthèse de l'actualité à la présentation Cheikhou euh, Saho. Amnesty International a publié hier devant la presse nationale internationale son rapport annuel 2020-2021. Euh, selon Sidi Gassama, le directeur exécutif d'Amnesty International a tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'au Sénégal, euh, les violations des droits de l'homme sont bafouées, il reste beaucoup de choses à faire. Il a également fustigé le comportement euh, qui règne dans les prisons. Euh, c'est exécrable, c'est difficile selon Sidi Gassama. Il a, il a également euh, lancé un appel à tous les Sénégalais de renforcer l'unité et la cohésion, et la cohésion pour éviter des dérapages au niveau de ce pays. Euh, Sidi Gassama a également euh, parlé Euh, des derniers événements qui sont survenus dans ce pays. Il y a eu 12 morts euh, selon Amnesty International. Ils ont également condamné ces violences euh, atroces au Sénégal. C'était au début du mois de mars dernier. Hier, célébration de la journée mondiale de la santé. Les acteurs de la santé ont également fustigé le comportement et l'irresponsabilité des autorités face à ces situations chaotique qui prévaut dans certains hôpitaux du Sénégal. Mbalo Diacham et ses camarades demandent des indemnités et conditions pour assurer le meilleur travail. Restons toujours dans l'actualité nationale. Les assises nationales de la jeunesse seront organisées à partir mois de mai prochain. Toutes les dispositions seront prises dans tous les 45 départements du euh, pays, annoncé hier le comité d'organisation qui était face à la Restons toujours dans l'actualité nationale, mesdames et messieurs. Euh, concernant la situation politique, le Fonds national pour la résistance a également condamné et fustigé euh, le report de ces élections locales. Euh, les membres du forum ont également salué les acteurs politiques qui ont beaucoup contribué pour qu'il y ait un dialogue paix et stable dans ce pays. Et nous allons nous rendre à l'étranger, en Côte d'Ivoire, bientôt la rentrée Euh, définitive et officielle de l'ancien président Laurent Gbagbo qui s'appelle à regagner le pays après avoir été, euh, disons, euh, euh par la CPI, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goulet vont bientôt regagner la Côte d'Ivoire. Enfin, les Béninois euh, sont en pleine campagne électorale pour l'élection présidentielle qui est prévue ce dimanche. Toutes les dispositions sont prises pour éviter des dérapages. mbokki asalaamaaleykum ñu tënk ko si kàllaama Kocc Barma ki nga xam ne mooy euh, Amnesty International dem nañ doon siwal seen bataaxal atum 2020 2021 euh, jëmale ko si ak wareefu doomu aadama bi nga xam nag moom la ñuy faral di xayma at bu jot lenn Sénégal nag des na lu bare si mbirum droit de l'homme nañu gën a góorgóorlu jàppalante euh, mën a mën a aussi éviter yenn fitna yi ci biir réew mi Gassama nag nee na mi ngi ñaaw événement yi moom yi fa yi passé Sénégal Amnesty rafetlu ko di aussi nguur gi ñu mën a euh, jël seen i motuwaay respecté seen i kàddu mën a lëkkaloo ak askan bi ñoom nag ñu ñaw ñaaw tamit li xaw si prison yi jéggi na dayoo euh, di woo xam mooy euh, jëwriñ rek ministère de la justice mu mën a leen jàppale nu mu gën a gaawee. dem nañu doon màggal li naan journée mondiale de la santé jëmale ko si mbirum wér-gu-yaram xam ne dafa sooxe fii ci biir mi am na hôpitaux yu bare ñu nekk say gàllankoor. amuñu ay jumtuwaay ñu ngi woo nag euh, le ministère de la santé ak président sa mu leen gëstu mu gën a gaawee li jëm si mbirum euh, xibaar ki nga xam mooy parti politique moom Front national pour la résistance ñoom dañuy rafetlu ñu élection locale bi ñu dàq bi ñuy dàq beneen jamono ñoom nag ñu ngi woo euh, autorité administrative ñu bëri ñu mën a fonk seen i kàddu organiser élection yi nu mu gën a gaawee. mbokk yi ñu koy ñu ngi doxantu fële ca bitim réew fële ca beneen ñuy waajal nag seen ñaareelu élection présidentielle bi am dimanche jël nañu seen motuwaay mot sëkk mën fa moytu yenn euh, fitna Côte d'Ivoire lañ koy tëjee ki fa nekkoon président Laurent Gbagbo ak Charles Blé Goudé ginnaaw bi ñu leen bàyyee mooy la CPI ñuy waajal nag dellu fële ca Côte d'Ivoire xam nga mooy le président Alassane Ouattara ak responsable politique ivoirien ñuy waajal nag kër boobu ki di Laurent Gbagbo ak Charles Blé euh, Goudé mbokk yi jàmm ak ba ëllëg incha